mbokk yi nañ déglu sëriñ bi am na gan di ko teeru di waxtaan ak moom nañ déglu waaye kër gii buggaan min na am na fulla yit nag du du ñëw mukk Tuuba te ñëwul ceew ndax sëñ Fallu tax lépp lu waay bëgg baa ma di ko wut sëñ Fallu moo ci gën gaaw ak fi nga teg sa mag yi sa njaboot baale ko muy sëñ fan ak sa digganteeg Bougane ak sa digganteeg réew mi te jàmm ngay dox di ko wax kon Bougane ñëw na ànd xante bi yéen ak personnel bi yéen télévision bi yéen bu ñu nee tey nga magal Kazu Rajab daf ma naan jël équipe bépp lañ dem te fii mooy ko sëñ fan kon nag ndaxte dañuy sakku ñaan nga ñaanal. yàlla defal ko jàmm Cheikh Abdou Khadir nag moo wax ni sëriñ Fall fu mu jaar nit ngir waaye fu mu wàcc bu ngir booba sëriñ Abdou Khadir mooy xalifa laa ko muri juróom-ñaari minute des ci ma julli timis mun ma wax ak gëdee la gënee oto ma ñëw taxaw ni gëdee sëñ bi nee ñu gënee oto bi kon ni sëñ bi wax ko ñu ngi gëwal fii ñu ngi kii da kii wax naa wax ak moom mosoo ko kii taxaw ci salle bi ku ne soxla soxla mu toll si seen bëri kër seen bu xaaj dinañ taxaw julli def la moom ak seen jënd bu sa seen Modou Mamoun nag keroog fii fépp dafa fees ndax mooy xel seen rajo muy mu kàbb mu kàbbal di mbiri ci biir sëñ man nga xam loolu mooy ñëw ci lii xëy sëñ Fall rek doy na sëñ sa baay docteur bi waaye dañuy yàlla moom ba mu ne pour amaana ku ma doon may jàll bi muy sëñ bu xañ loolu la bokk bu baax ñii taalibe sëñ Tuubaa taalibe sëñ Bamba nag ñëw ci kër sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa képp a xamal ndox digganteem ak lu koy jàpp baa lu koy jàpp sàkku ñaan nga ñaanal ko ñaan jàmm ci biir waaw maa ngi déglu waaye. waaye lépp lu mu bëgg sëñ Fallu mën na sëñ waaye Mbàkke kat ni nga def njabootu sëñ Fallu gi def ko sa mag yi ci yow nag lañ gisee buy ñaan barke sëñ Modou bu sëñ barke Alaaji Baara barke sëñ Mbàkke jarul yàlla ñëw na nag tey ànd ak njaboot yi man nag su ma te wér ndax daf maa teg ci wetam man ma nit ku nga xam ne sama diggante borom réew mi président Macky Sall dama ko wax ko du la bàyyi du ma bàyyi Bougane waaye daal Mbacke dénk naa la Bougane dénk la réew mi nga sant ko ñaanal ko digal ko te waxtaan ak moom waxtaan rek waaw jërëjëf Baye Abdoulaye kàddu yi yéeme na kàddu yi teg na ci yoon te it gàtt na ay làmboon lu bari sëñ Bougane sëñ maa ngi lay nuyu bu di bëggati sa teewaay yow moom am na jaayal na ci yoo mm-hmm. ngeen di ko lool mooy kuy dem ak di xorondoo kuy dem dafa am muy mànka ndax doxinu ku bokk ci yoon bi moom mm-hmm. loolu moo ko waxee dana niru dafa niru bokk ci yoon maa ko wax dafa niru bokk ci yoon koo xam ne dafa niru bokk ci yoon ku xam na ni sa murit ba nga koy fësal lu tey ba nga ciy dox lu tey waaye nga teg ko foo xam ni teg ko kaay bu mag la ne ñu ñëpp xam ne te sëñ bi gis na sa digganteeg sëriñ Moustapha Mohamed ñu gën koo ñun ci dekk borom ni muñ ponkeel bi nga am ci moom bët ba xool sëriñ Mbacke sama doom waajur bët boobee da koo yokk waaye dara rawal yàlla doog rek moom ak ci fenn bi nag ak ci fenn moom da sëñ laa bëgg Sëriñ Moustapha di jàmbaar wóor na ma ni jotaay boo teew ci yoon murit dana neex Sëriñ Moustapha lool waaye jotaay bii dana am leneen lu bëri te gis nañu sa yaatal jëfandikoo nañ te te nga dox na nga cay doxe jëmm yii dañ moo ameen bay ak bàyyi online bi di ko séq muy muy plateau yoo xam mm-hmm. ne kiimaan te loolu yëpp da saxam xanaa xamoon ne bi ngay def sa télé adduna bépp war nañ ci jàng ndax am réew bu ko bëggul du ndoxe di ngay dox sëñ bi gëm baax ci sa teewaay gëm na ci sa waay wax xam ni waaw. sëriñ bi ne la moom fekk na ko waaye du man rek maa ko yoon wépp ko ndax Quran moom fonk yoon wépp yoon wépp fonk ngir jëm yi Seex Ahmadu Bamba du man rek maa ko fonk du Touba rek ko fonk réew mi ko fonk ndax bugaan mii kat moo fonk réew mi réew mi ko fonk gis ngeen seetaan ngeen ay génnam di dem ci jaami yàlla di leen teral li muy wax ci ñoom ñun ñëpp ñoo ko déggal ñoom it li ñuy wax moom ñoom it ñoo ko déggal te it loolu te it am na njëriñ ndax jaam bi yàlla da leen a bëgg lool kon nag ku leen di teral da ngay séntu teraanga jooju ma leen di teral yàlla dana la jox teraanga bi leen mën a daj incha allah. nee na màggalu sëriñ Fallou bu ñëwee muy Kazu Rajab oto oto oto nga xam ne mooy def direct fee la ñu gaar ci buntu kër gi. nee na nga xam ne ku bëgg a wax dara wala nga bëgg a jël dara. li ko wax nga koy fekk loolu nag ak jëfandikoo nee na ñu ngi koy sant di la gërëm di la ñaanal yu ñu lay gërëm bi nag xam ne dañ koy wóolu ndax mooy nit yi nga xam ne Serigne Fallou moo ko saj lu baax lu ne Serigne doomi Serigne Touba yu baax yi fu ci nekk sëñ Fallou teral na la fii waaye ñoom ñëpp teral yi leen gënaloon moom sëñ Fallou dafa doon xalif général boo xam ne dafa doyoon waar bëri baatin bëri saay ba daj fépp dañ gëm te doomu citoyen bu ñëw dana la def noo xam ne dafay dolli li nga xam-xam sa nga gën a xam ne fu ñu la toll la rek sëriñ Fallu booba fu mu fonk ba woon booboon nag na yaay sëriñam ndax sëñ Fallu doomi sëriñ Tuubaa yëpp ay sëriñam lañu mu ko def rek ca tolluwaayam boobu ca tolluwaayam boobu da a yëgaat sa bopp ku ci nekk sëriñ Fallu teral na la fii sa di yonent bi yu baax ne seen maam lu yàlla bindu woon moo gën ñëpp nit yu bare bare Sëriñ Fall teral na leen fii ak ñi nga xam ne ñoo koy waxee dañoo néewoon doole day ami soxla yoo xam ne léeg-léeg mu fekk leen war a faj dañu ci man dara ñooñu ñu ci bari Sëriñ Fall teral na leen faj ci seen soxla bu dee jàng alquran bu dee julli ak jàng xasida yi ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci yaakaar rek loo ci yaakaar boole ko ci nit yi yooyu yëpp boole ko ci nit yi ngay ñëw di def nga mel bàyyi boo rafet jox incha allah na sa xel tal bu baax moom na taaloo parce que li bëgg jamne dara xale bu dugg ma man san si ngay ngay ñu jul xal

am jël micro sa jëmbaat bi sëriñ Bougane ñëw na li nga doon wax am na firnde sëriñ Bougane sëriñ Bougane ñëw na da daal jóg sa mbokk sëriñ Cheikh Coro Bala Coro xarit Mbacke ma tay ba daa daal jóg sa mbokk kii kii nag sa jëmbaat sëb jarbaatu ne ànd naa sëb njëkk jox micro ci màggal Touba de ne ma waxal. bisimilah sëñ Abdou. ci Abdou